قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن wilaaya ñoo fi nekk Mafatihul Bisr ñaari guddi Ndakaaru ñuy yor kuréel ga di ko saytu ak Safinatul Amaan bu Kéré Mbaye ñii ñoo daje woon fii doon sontal liggéey bi nga xamante ni moom la sëriñ bi doon digle yéene ji ak pas-pas bi moom bàyyi nañ ko ak sëriñ bi waaye noonu ci sunu bopp nag am nañ bëgg-bëgg mooy fas ngi sëriñ bi yàgg fi te àggale colet ca nam ko gënoon a bëggee waaye bayit woowu sëriñ Tuubaa doon wax wasrif bi jaahil muntaqa lil umma ixaasatan lil wara wa takfir xumma azawal xumma bayit woowu it ci la ñuy doxeñ suñu mbir rek loolu daal sëñ bi mooy mooy yitte ji yéen itam ñu ngi ñaan taxawaay yi gën a yàgg suñu borom gën a wéral cër gën a kaweel pas-pas yi mottali yéene yi ba li ngeen bëgg di ko liggéey suñu borom defal leen ci lu kawe ñot lu am murid saadix di takk ci yoon wi daal ñoo ngi leen di fasal ci jataay bi suñu borom takkal leen ko te nun nag suñu borom bañati noo topp dara te nawet bu baax te barkeel ñu jariñoo ko te am ngërëmal sëriñ bi di sant nag suñu jawriñ ji ci suñu kanam di suñu Ousmane ñu ngi koy sant bu baax a baax teewal na leen fi teewaay bu mat sëkk bu ngeen gisee gisu leen nu fenn moo tax ne kon waxtu wu ci nekk fu ngeen gestu da ngeen seen ci nangam manqué nañ ko ak nangam ak nangam waaye teew ku mu fi teewee seen jëmm tax na jàppale dara sant ko bu baax a baax di ko gërëm di gërëm mboolem bokk yi ñu taseeloon lii daal mooy bokk yi nga xamante ne nii ñoo doon ànd di saytu liggéey bi li ci des moom bàyyi nañ ko ci biir ñaan gi ñaan gi nag li daan wax rek du ndox mënu ngeen ñuy jox du suuf su ngeen ñuy jox daa naar bu doon wax Cheikh Mouhamadou Moustapha ni ko danoo bëgg nga jox nu wenn turu yàlla ci tur yi leen fi seen bàyyi bàyyi doomu Cheikh Sidiya la ma jox leen wenn tur yi nu fi suñu bàyyi bàyyil sëñ Moussa ni ko noonu suñu bàyyi bàyyi lu nu fi turu yàlla lim fi bàyyi ci suñuy bët la ko def lu nu xool nu mel na nu neex nun nag nen na leen rek ci murit yi te ci barab yi sori te fasanti ko lañ jóge ñu bëgg kuñ taseel aajam faju wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay jot li kàddu yi sëriñ bi wax nee na yu gàtt lay doon ndax ci suba dafa yónni sëñ Moussa nee na mu wëral dal yëpp fi mu ci ndigal li mu santaane woon nee na bi mu ñëwee ba leeral ko lépp nag nee na yëg-yëg bi mu jaam ak ni mu kawee njortan ci ni mu ko santaane woon la ko wax ne ko boo demee nga wax am Amsatu ñoom ak sëñ Ousmane Mbacké mii nee na na ngeen xam ne liggéey bi làq ngeen di gërëmal Serigne Touba nee na loolu rek ngeen doon wut nag nee na moom lañ doon wut ñun ñëpp kon nag sëñ bi nee na. lim ci doon fas. lim ci doon fas. mooy sant la Touba boromam. mooy sant la Serigne Touba boromam. ak sant Serigne Touba. ak sant li des ci sunu dund. li des ci sunu dund. lépp ñu liggéey rek. lépp ñu liggéey rek قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن